mbokk internet yi Wassare TV gis ngeen ko ñoo ngi toog nag kii na boo ko gisee nga xam ne foromaa leen dëgg seen ram daan donc Waly maa leen di bu baax baax ba bàyyi ngam tawfeex. sant yàlla bu baax a baax waaw sant yàgg. naka koor gi. ah waaw koor gi ñu ko gérer rek. koor moom tawfeex la. waa méttiwul. <laughs> waaw métti na méttiwul. na ci benn côté mooy li muy waaj a jeex boo ñu métti. dina méttiwul mooy tawfeex gi ci nekk. donc métti na méttiwul rek lay wax. koor géwal nu muy demee koor géwal. ak ñëw mën a woor ak ñoo ñeme koor te mën a woor mais ñun moom suñu koor xam nga toog waxtaan bi en famille kafoore voilà lépp ñu teg tënk ko ci koor rek xam ne ci koor la ñu nekk moo tax duñ ko yëg waaw Gueweul moom je pense que dara méttu lépp day moom rek mais sant yàlla macha allah macha allah comme que dugg nañ ci baax bay waaj xaajal nii donc kon sant yàlla. tey ñu ñëw fii si kër si fekk si nga nekk mbokkam euh, nekk rakkam euh, yan kàddu nga ñuy jox tey ci li mu organisé.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 Eh, li ma koy waxee rek showbiz la quoi showbiz la mais yàlla dafa def ni ku yàlla di xeexal doo xuloo suñu papa ma Penda seek moo koy wax moo ko daan way nee na ku yàlla di xeexal doo xuloo donc loolu rek tënk na wax ji juste dañuy Sénégal nag dañuy jaawale ñaar dañuy fekk koo xam ne dafa bëgg nit di ko top ci li muy def ñu bëgg ko def ñu bëgg di ko tuddee concurrence du concurrence c'est normal maanaam di nga gis nit bëgg ko di ko toppandoo ci li may ci li muy def c'est seulement ça mais bon amoon gisuma concurrence juste dama gis ni showbiz la mais bon bàyyil xel rek ku yàlla di xel doo xuloo donc ñun Ramadan on a on a on a pas de temps di di bàyyi xel ay concurrence parce que on a trop de travail à faire Sénégal moom Sénégal bu mu la joxee bopp rek daf la sas. tu as intérêt à bien bosser quoi noonu la demee donc du coup ma je parle pas de Wally Seck mais ñun Ramadan rek on a du pain sur la planche dañoo war a liggéey ba ba bañ ici repose donc ci loolu la ñu nekk waxi concurrence nag bu ma déggee sénégalais di ko wax damay toog ak ree parce que ku ci nekk boo toogee sa coin xam nga liggéey bi bi la war ci yow moom nga war a def donc man noonu laa ko gisee c'est ça. merci beaucoup. kontaan naa bu baax a baax. am naa question de balaa ngaa def mais voix bi bu wéyee nit ñi de comme Wally Seck da nga mës a def musique wala la ah <laughs> waaw ayca non man même bu dul loolu sax doomu waykat la parce que man maa ngi juddoo ci famille boo xam ne famille waykat lañ donc sama papa waykat la woon Pascal Dieng donc c'est normal léegi nag voix bi li ñuy wax voix bi bu bu bu bu wéyee ñu ne Wally Seck waaw ku ci nekk nag am na lu la yàlla may mais euh, ku nekk ci gétt gi. naan ci meew mi te je pense que ne c'est pas c'est pas facile nit di way sax ñu naan dañuy dégg Wally Seck parce que Wally Seck du n'importe qui si je me trompe pas du n'importe man du ci métier bi mu nekk du ci personnalité bi mu bi mu doon mais bu la yàlla dimbale bañ naan non dañuy dañuy booy way dañuy mel ni kuy dégg Wally Seck donc kon xam nga xamal ni am na as liggéey bu ndaw gooy sax ci yow parce que parce que il a une très belle voix baat bu am doole nag donc ñu bari nag dañ may wax bu ñu booy way dañuy dañuy dégg Wally Seck ma ci fier lool nag ma ci lool di di di xaw a sax nuroo ak moom voix parce que je pense que ne voix bu mu yor c'est autre chose donc kon deret yee daje mu doon way doom waykat ma doon doom waykat avant tout loolu ma dugg ci musique voilà léegi nag bien sûr que oui man euh, génn naa single mais je pense que début Covid bi dafa ma ko génn rek Covid bi ñëw. donc du Covid moom xam nga ne daa bari doole. waaw mais nag incha allahu rabi léegi léegi léegi rek après Korité bi juste ngi waaj sama deuxième single bu neexee yàlla. maa ngi sama carrière solo boo xam ne maa ngi koy def mais lépp lépp lépp ci kaw topp samay gannaaw kilifa rek. waaw waa Ramdaan Wally Ballago Seck Fallou Ndiaye Benjamin ñu naan ma fii defee ko nii jot na bàyyi lii defal lii voilà loolu nag yàqalu ma dara. ak le fait may liggéey Wally Seck yàqalu ma dara au contraire daf may yokk parce que daf ma moom daf may may yeneen opportunité yoo xam ni damay taxaw ci seen yoo xam ni bon je sais que lii nii la demee donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. voilà je sais que mi ngi joué rôle bu am doole ci sama image rôle bu am doole ci sama ci sama liggéey donc dama koy delloo delloo delloo euh, njukkal ci loolu di ko delloo njukkal aussi sama grand frère koo xam ni musuma bàyyi gannaaw musuma fàtte ci lenn. ñu ko Mbaye si Ndiaye kooku je me rappelle très bien dañ daan yéeg sur seen sax bi may doog a ñëw daan moo way noonu xam noonu mais ci kaw scène bi dama koy xool xam ne kii pare na pour xeex man ci kaw scène bi bu ñu wàccee première chose à faire mooy daf may xëcc xuloog man du ma yedd daf may xuloog man ba ma mere ko mais je sais que loolu moo koy mere sama njariñ la man tey laay doog a xam ne sama njariñ la donc ma di ko sant di ko gërëm Benjamin moom du ma ko sant dama koy bàyyi noonu quoi moom moom moom image yi ak nit ñi xam nañu. parce que xam nañu fi mu féete ci man mais mbay si spécialement dama koy sant dama koy sant lool lool lool lool di sant sama yaay Xadi Seck waaw mu ngi moom ngee romb ci bëtu boobu ah mu ngi rakk ci coon Seck moom nga xam ni bi ñëpp bañ rek dafa bëgg bi ñëpp sànnee dafa téye donc kon du ma du ma du ma du ma gudd ci wax ci donc juste damay wax ne yàlla nañu yàlla doolu jàmm pour ngeen bàyyi ko noonu xel Fallou njaay Benjamin mbay si Ndiaye maire Khady Seck ñett ñii féete nañ ma foo xam ni nit pour mu féete ma fi c'est tout voilà donc kon yàlla nañu yàlla dooleel jàmm quoi kontaan naa ci yéen bu baax a baax baax na merci beaucoup. am na leen loo xam ne bu des moom dañ koy bàyyi ba beneen yoon di def plateau spécial ñu waxtaanee ko. non yéen kay la fii vous êtes la bienvenue heure bu ngeen ñëwee maa ngi ñu jàkkaarloo yéen suñu émission est-ce que dama trois heures de temps. parce que li ñu daa bari. am leen jàmm. ñoo ngi nii nag jàkkaarloo ak Awa Banaya ah, princesse Banaya princesse Wally Ballago Seck princesse Ramdan Awa ñu ngi lay nuyu. Ah, di la baal àq ci koor gi tey sa nawle woote muy euh, Benjamin di la jàmbal lu neex ci kaw seen bi tey mu woote ndogu ah, waa Benjamin famille ñu ñëw fekk la fi naka ko dundee bés bi. dafa oyof la wax loolu bu ko gisul succès amul dara bàyyi faalu a ko a ñu koy ñaanal gudd fan ndeysaan ak ndeysaan tout tànk boo wàññeeku. ndeysaan di bàyyi faal ñëpp xam ko waaw loolu dafa baax nekk góor yàlla. Oh, man nee naa la a bi ma demee ba yor course ba moo tax ndeysaan dama doon ko fekk si batterie bi yor course may dafa baax Ah, mu mel ni rek période bi ñu toll moom mooy seen période pause yaram yëpp day nagam ndax ñu ngi la dégg nga naan dafa da nga feebar fecc metti na lool ak weeru koor bi noo koy dundee. est xool keneen wala nga laaj wala nga laaj lu ñu opté la lu ñu bëgg la kenn dara mi ngi euh, baax. Mhm. yàlla na la yàlla baax ndax ku baax rek ku baax may waaye. Mm-hmm. waaw te yàlla bàyyi laa nag doomu ndeyam waaw papa ñoom ñaar yàgg nañ yàgg jamono yi pot <laughs> après koor gi daal réew mi dina daan après koor gi dina gën a neex ay